asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi àjjuma gis ngeen tey laafa bi ñu xëy tey maye noir balan di ziar ñëpp téléspectateurs yi ak suñu soppe yi fu ñu mën a nekk rek à travers le monde du ñu fàtte kenn di ziar ñi ñaan ñëpp jàmm tey nag plateau spécial lañ leen defal li ko waral mooy olof a ko wax ku bundee ni tama faw ñu tëggee la ñaari boor ndax li ko indi mooy dafa am ñu ñëw ci làmba ci bees comme promoteur Mm, parce que nekkuñu ci bees en tant que sénégalais parce que ay doomu réew mi lañ di ay pire produit sénégalais waaye nag ay bees lañu ci promoteur ñu leen di wax war rent DKR boobu tur soo ko déggee sa xel day dem ci ki nga xam ne nii moom moo di Alain sa xel day dem ci ki nga xam ne nii moom moo di Jimbo Jogoy Pape Sarr defe naa loolu mooy équipe bi ak staff bi ne ci ginnaaw yaa ngi dégg tey nag ñu jëm ci bés ñoom ñoo fi tëggoon làmb ji dem ba bés ba ñu ne problème de sécurité état aj ko ba noonu ñu gëm yàlla jàpp seen njàmbur coowuñu waxuñu yëngaluñu dara muñ ba tey li olof ne ko muñ muñ yàlla dogalaat ginnaaw suba la làmb ji yàlla nañ ko fekkee te tal ko ñoom ñaar nag ñoom laa dalal ki nga xam ne moom mooy Alain ngomeen bi moo nekk sama droite ki nga xam ne moom mooy Jimbo moo nekk sama gauche ngom ji nag moom moo ma ci xaw a jaaxal moo tax bala maa jox kii mu wax kii daa njëkk jox mu wax ki sant ngom moom na na xaar tuuti Jimbo maa lay ziar. Babacar maa ngi lay fay. di nuyu sa waa équipe yëpp. ndeysaan di gërëm waa Equivox bi ñu dalal fii seen plateau bu yanj bi. am na solo. kon Alain ah, Ngom waaw <laughs> ah, maa ngi lay ziar di ziar bi yëpp. ndeysaan di ziar waa ren DKR yëpp. Mhm. Euh, Jumbo. Mhm. Pigeot. Mhm. ñi ñëpp ak ñeneen ñi ñëpp fi nekkul. ziar soxna Sandra bi ñu àndal. am na solo macha allah rent DKR su ma leen laajee lan mooy rent DKR bu ngeen ma ko doon tasal tey pour ñuy comprendre ñu xam. rent DKR à la base euh, société location auto la. Ah, dañuy def transfert location auto lépp. bu mhm. importé yàpp bu tudd Codagel. Codagel ok bu commencé nag di dugg ci làmb ji. Mhm. dañu toog ñu ne. bu mhm. ñuy tuddee structure bu ñuy def waaw. dañu ne nu ñu tuddee structure bi ñuy def. Mhm. ñu toog ñu ne ah comme Codagel daa gudd moom dañ ko tuddee rent DKR rek mu jeex. <laughs> noonu la demee quoi. loolu moo di turu rent DKR bi quoi. moo di turu rent DKR. ok parce que def location auto. Mhm. mise à disposition. transfert transfert aéroport. aéroport waaw lépp da ngeen koy def waaw. société yeeg surtout yu bëri noonu particulier ñi ñëw vacances ak yooyu mhm. nga xam loolu yëpp day laal diaspora bi. bien sûr way daf leen di laal. noonu la waa diaspora bi. mais waa di loolu am na solo parce que loolu moo lay wan ne kon xaaru ngeen rek ba mu neex leen. Mm. ngeen ñëw rek dugg ci làmb au contraire da ngeen nekk ay sénégalais di lëglu yëngutu ci luy développer seen réew mhm. gis na tamit la làmb secteur buy indi développement la bu mhm. yokku liggéey la ngeen ñëw dugg ci mhm. mais Alain mooy kan fu Alain dëkk ci réew mi <laughs> non man moom point la juddoo fa la màggee point un ville la juddoo mais point la màggee bu fay ñëwee doo ñëw bokk même koñ point un koñ waaw après la dëkki Mariste ok loolu tax ren DKR nekk Mariste après ñu tukkendoo xam naa tuuti laa ko jiituwee. tuuti nga ko jiituwee daaw noonu la demee quoi. seen premier tukki ban réew ngeen demoon. man bi may njëkk tukki Italie laa njëkkee. Italie <coughs> mais. <coughs> yàgguma ba foog naa weer laa fa def. Ah. <laughs> te jaay dara ma nekkoon ci bopp. <laughs> saa da lay saani xeer euh, rek. weer laa fa def. ma Italie un mois nga waaw dama dama ñëw xool dëkk bii daal. xam ne fii du pour man. nga ñoqali. man dem France. nga dem France <laughs> actuellement. yaa ngi France foofu mooy baas bi waaw foofu mooy am na solo Jimbo xam nga ñun moom Jimbo def ma publicité mais Jimbo li ñu ci xamoon mooy la nga moom nga daan def ci cin li rek pour neexal togg gi mhm. waaye tur wi daal moom nit ñi fi nekk ne dañ daan Jimbo kan la Jimbo Jimbo kan mooy Jimbo Jimbo benn booy la rek benn mhm. booy bu juddoo point la màggee fa yaroo fa rek mhm. tukki après gëm sama réew li ñu naan picc ngi ci kaw picc picc ngi ci kaw may xel banque ci suuf. Mhm. loolu sonal ma. ma mhm. daal di buub doom yëpp ñëw toog fii rek. ndeysaan waaw gëm sama réew. gëm sama bopp wóolu yàlla di ko di fi liggéey. Mhm. voilà loolu la. am na solo micro yi waaw nay jege. am na solo. mu mel ni kon su ma leen déggee daal c'est des sénégalais origine sénégalais wala ay pur sénégalais macha allah am na solo. moom lu mu doon. <laughs> Ah. Euh, ah, waaw parce que man de yoo xam naa ne ngom ngom moom Sénégal la dëkk waaye moom di Jimbo rek laa xam ci moom <laughs> kon muy nuyu malien yi kullu kuy malien maa ngi lay béggee bambara yi ak mayga yi xeetu malien bi nuyu tous les africains xam nga gis nga ko ci yàpp bi xam malien dafa bëgg yàpp waaw waaw moom waaw waaw dibiteri bi sax <laughs> may nag sa sa sa sa dibiteri boobu la muy lakk ah, doy na waaw foofu dibiteri dibiteri àdduna la ku mu neex na ñëw reer naa ca biig de ku mu neex mu neex na ñëw kooku moom la la kii nu mu tuddati looy am mos runkum ah, daje runkum daje <laughs> waaye looy am mos mos waaw ah, dibiteri ba mu compréhension <laughs> loolu xaalis sax ñu jox la ko rek boo amee nga ñëw fay am na solo léegi nag damay ñëw euh, directement si làmb ji mm. defe naa ne bi ngeen tëggee làmb waajal ko combat yi ngeen boole. Mhm. nit ñëpp dañ ne ñii di ay gan ñëw ci làmb mhm. nuñ mën a def bu composé mbër yi nga xam ne moom lañ dajale mbër yi ngeen dajale noonu. Mhm. nga xam ne ñëpp dañ ne lii vrai làmb la. loolu xalaat boobu nu ngeen ko defee. non ci gàttal déjà. <coughs> sa micro euh, waaw ci gàttal déjà. mënoon na gën a neex lii. ah li ngeen def neex na kay. parce que ba ñu yegg si déjà. waaw ni ñu ñëwee woon. bëri na mbëri ñu bëggoon. waa làmb bi yombaluñ ñu ko. mais yàlla jox nañu li nga xam ne moo gën ci ñun. bien sûr voilà. Mhm. léegi euh, comme ni ma wax rek ñun chaque jour li may wax xëy na dañu ñëwee. Mhm. amaana euh, différemment. Mhm. xëy moo tax euh, yenn yu sotti. après nag dina am nit ñoo xam ne tamit bëri na nit ñoo xam ne jàppale nañ ñu ci. dëgg jàppale nañ ñu ci. bien vrai que bon ay problème am na tout ça. am na ñoo xam ne jàppale nañ ñu si bi ñu si commencé. Mm-hmm. bëgg fàllu li xew xew na mais. jàpp na ci waaw foog ñu nangul ko ko. non bëgg ku baax la sax nag. Euh, Iba bu école de lutte Pape kan mhm. bëri na quoi bëri na mhm. bëri na ñoo. xam ne ñu seen loxo ñu ci dugal seen loxo ci départ bi. Mhm. Euh, xëy na looloo facilité affaire yi après après dañu ñëw ak suñu idée ah. ñëw ñu fi tamit di def mathématique yu bëri ah. parce que gëm naa ne boo ñëwee di def benn affaire nga mathématique yi bu ci ëppee rek doo mujj def di nga war a. doo jàll voilà. dëgg après noonu la demee ñu monté combat yi benn par benn c'est vrai que ak Covid bi on a eu le temps. parce mm. que euh, ci nga kenn monté wuloon combat. Mm. ñëpp ngi taxaw di seetaan ñun. bien sûr ngeen ñëw xuus. voilà mm-hmm. am na mbër yu bëri yu disponible woon. ñu mm-hmm. signé mm-hmm. xool lu ñu kii. Euh, te ñun dañu mës a demee benn affaire bëgguñu mbër mbër duñu imposer adversaire voilà yéen xool li jaadu. ñun ñooy xool li ñu bëgg. waaw ñu ñëw waxtaan ak benn mbër. mun ñu bëgg na bëre. ñu dem utali ko adversaire Hmm. mais moom ci boppam mi bëgg bëre du ñu ne. du ñëw rek leen force kii laay bëreel. non dañ koy ne boo bëggee bëre lii la ñu mën. lii la ñu mën. kii la ñu am. kii la ñu am. ci adversaire kii lii lañ mën ci fay. voilà te ñun bëgguñu woon topp tamit. ñii nii di leen ne ay bul tëgg bii mbër tam du la andil dara wala non non ñun dañu tëgg suñu bëgg-bëgg. waaw li ngeen sentir. <laughs> parce que ñun xam nga diaspora bi dafa doon affaire boo xam ne dafa garaaw mooy maanaam gars yi dañuy dund làmb. waaw diaspora dañuy dund làmb. dañu bëgg bëre. Mm-hmm. te ñoom bu ñuy seetaan làmb parfois du ñu gis mbër yi ñu bëgg a gis. dëgg la parce que Sénégal tey toll nañu fi nga xam ne promoteur yu bëri dañuy privilégié mbooloo bi mbër bi di andi. Mm-hmm. xoolatuñu qualité bëree. Mm-hmm. xoolatuñu ni ñuy satisfaire spectateurs yi. Mm-hmm. parce que spectateurs yu bëri bëgg nañu gis combat yu neex. dëgg mbër yu mën a bëre. léegi mbër yu mën a bëre yooyu noonu suñu leen jàppalewul ñu am ay combat suba ak ci biir du ñu bëre. bien sûr te soo suñu mënee bëre di daan dinañu dem ba public topp leen. dëgg la waay voilà ñun dañu dañ privilégié ay mbër yu mën a bëre. yu mën a bëre voilà te amateurs gis ci seen bopp. voilà am na solo. léegi yow ma laaj la Jumbo journée bi bi ngeen ko jàppee ñu xëy xëy dàq ko te ngeen li ngeen li ngeen waroon def yëpp ngeen def ko boobu lan ngeen sentir en tant que ay gan yu bees ñëw comme dem ba pare ñu ne la lii mënatul ne. waaw boobu metti woon na trop. parce que waaj dafa metti bu baax soo waajee ba nar a àgg ci bés bi. Mhm. ndogal ñëw. Mhm. en tant que nit en tant que doomu aadama dañ koy nangu ba pare. Mhm. mais ci kaw nangu bi tamit dañ ci am ay jàngat yoo xam ne nii ni mu demee. neexuñu parce que amul euh, dara jaaru ci yoon. taxaw nañ làmb te gisuñu décret. gisuñu notification gisuñu xamuñu kenn exactement moo ne nañ taxawal làmb ji. te lii moo tax ma koy taxawal. ah du dañu gouverneur moom moo wax mais mais l'administration est écrite. waaw ah, loolu moom am na. nguur. Hmm, këyit la xam day bind waaw loolu am na de. ministre des sports. Hmm. su fekkante ne gouverneur dafa taxawal làmb ji. Hmm. bu dee loolu loolu loo am. njott naa ne kon woo nañ ko moom ne ko ah dañu taxawal làmb ji parce que secteur am la concerne. <coughs> dëgg la baal leen ma. waaw parce que jour bu ñuy taxawal suñu làmb ñun. quart de finale coupe du Sénégal am na ci ngoon si. dëgg te sécurité police moo fa nekkoon. sécuriser ko sécuriser ko. Mhm. ci veille bi Djiby Dramé def na fi nuit du bassin méridien président. police moo fa nekkoon sécuriser ko. Mhm. kon nag waa làmb waruñu woon accepter ñu ñuy du du ci waa CNG nag ah. du CNG ah. déedéet parce que parce que parce que parce que parce que CNG man au début toujours boo xoolee sama discours si ñoom sax dafa xawoon. Euh, tàng tuuti. Mhm. mais le fait que nga commencé dugg ci làmb ji fréquenté fa xamante ak ñi fa nekk. Mhm. da ngay dem ba da xam lu bëri. da ngay dem ba xam ne ñoom. dañ mhm. dañuy na tënk. ñu bëri ñu ngi naan CNG CNG mais CNG mënu si dara parce que ministère moo leen joxul gëdd bi mu leen war a jox. man ci sama jàngat bokk. président Bira Sène ku baax la ñi fa nekk équipe bi yëpp muy sow muy ñàmbee mm. ñoom may sa ñëpp amuñu problème mais dafa am loo xam ne mënuñu ko def parce que dooleelu kenn dooleelu leen dañ leen a tënk-tënk bu ëpp alors que fédération day libre Augustin Senghor tey ci football bi day xëy def sañ-sañ bu ko neex ah, di xaaru ci Matar Ba mm. mais làmb amul loolu dañoo tënku trop ci ministère bi. parce que moom club yaa tënku trop ci ministère bi te ministère bi. Mhm. li mu war a indi apporter la apporter lu ko làmb. <laughs> ministère des sports non. ah gars yi ne moom fii làmb ji la faral. gis nga bilan CNG ren. bilan bi bilan jot nga ci. lu ne ca bilan ba. xoolal subvention bu jóge ci ministère ñaata la. ñaata la ah xool ko rek bëriwul de. <laughs> ñaata ay weccit la de. bariwul dara duma dara du ma du ma ko tudd fii parce que kayit boo xam ne la kayit officiel la. Hmm. CNG def na seen rapport. rapport bu jaar yoon. wax li ñu encaissé li ñu dépensé li ñu dagg mbër yi ak li ñu frais yëpp. ba dese trente et quelques millions ci seen kees. ma indi ci félicité parce que lii mosu fee am. kenn mosul woon gis bilan CNG. ñoom nag ren ci seen euh, euh, euh, diir bu gàtt bi ñu équipe bi di diriger. fexe nañ quand ba génne un bilan clair et net. Mhm. day dalal day xelu nit ñi. Mhm. Mhm. mais su ma xoolee ñoom li ñu am de la part de l' état. c' est trop petit. dafa ndaw te tey làmb. fu ma dem naa ko waxaat li làmb di dugal ci milliards ci at bi ci sport amul sport bu ko fi dugal ci Afrique waxuma la Sénégal de Afrique tey ba mbër bi euh, sportif Afrique buy fayee ko deux cent million wala cent cinquante millions ci benn tàkkusaan waral Afrique yëpp doo ko gis waaw xam naa làmb rek daa làmb kottamul loolu kon boo amee sport buy générer autant de milliards autant de dérivés ak autant de personnes yu ci yu ciy liggéey mm. muy site Mm-hmm. muy jaaykatu ndox bi mm-hmm. muy jaaykatu crème bi mm-hmm. muy defarkatu bâche yi defarkatu blouson yi t-shirt yi ak yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp laaj na nga xoolaat sport boobu noo koy professionnaliser pour mu gën a jëm kanam parce que bari nañu ciy tedd voilà am na solo du loolu sax mais am ñu président CNG bu baax c'est que waa làmb ñoo bëgg lu baax ñoo bëgg ñoo bëgg lu bordélique loolu de baaxul moom lu baaxul de nii nii tey dañu ne salaamaaleykum mu tegal leen bilan bira waaw làmb dañu bëgg bordel. bira de teey na. teey na waa làmb ñaar lañu bëgg bordel wala ku leen di caw ñuy yuuxu fu ne bàyyi leen na na fi jóge bordel lañu bëgg su ñu amee ku ñëw teg ko ci yoon ñu ñëw di ko ngañ ñun bi kii bi xewee nit ñi wax nañu lu ne pour ne waaye da ngeen war a wax ci waa CNG tàkk ci ñoom man leen du ma def loolu booy tàkk ci ay nit. dafay fekk mu leer la ne nit ñi def nañu. naka ñoom ñoo def lii waaw waaw. dëgg yàlla man ku la tooñul. waaw wax dëgg dara nga bëgg a ñëw kii ma ne leen man su fekkoon Bira Sène personnellement man woo na ñu toog ñu waxtaan mais vision bi ma amoon ci moom. Hmm. balaa loolu ak bi ma am ak moom ci moom. bi ngeen toogee ah, waaw bien sûr la. Hmm. nit ñi nag nañu privilégié nit buy liggéey. Hmm. ñëw na andi na bilan kenn commentaire ci. mais kenn bu defee lu baax. Hmm. duñ ko wax dara hmm. dañuy xaar xool benn affaire bu ñagas. benn erreur bu ndaw rek ñu profité ci. doguma la keroog sax maa toog moom ñàmbe <coughs> man leen yéen hmm. bénévolat bi fi am. dafa war a dagg. ay CNG kenn fee benn bénévolat dafa war a dagg gis nga CNG. dañuy def liggéey dafa laaj te teg équipe boo xam ne. dañu def daggal salaire. weer bu dee ñu fay la muy seen ah. ak ak yëleef. li ah, làmb di dugal xaj na ci. li promoteur di fay frais d'organisation. waaw xaj na ci. ñu leen di daggal salaire ñuy liggéey en mm-hmm. permanence mm-hmm. am un site boo xamante ni nañ fa joxe information yi en temps réel mm-hmm. mais di fa liggéey ñoom euh, ñu ngi may remarqué loo fédération sénégalaise de football saa bu ñu amee réunion per diem vingt cinq mille la ñuy joxe bu dee ci région nga jógee boo ñëwee ñu jëlal la hôtel ak yooyu ñoom amuñu loolu lépp mm. donc bu ñu bëggee liggéey bi gën a dox sa tey ku lay dawalal sa oto mënta mm. xiif nga ne ko nañ dem Guinée lekkul suba ba ngoon guddi nga ne ko taal oto bi ñu départ dem Guinée il faut nga jox ko mu lekk ba suur naan ba màndi mhm. nga ne ko taal ñu dool mu daw la xel bu dal mhm. donc il faut que CNG ñu daggal leen salaire mhm. yu baax ñu toog di liggéey parce làmb mën na ko générer xaj na ci ñu am équipe boo xamante ni administration du taxaw bu ñaambee nekkul fii keneen nekk fa mën a doxal bu keneen kooku nekkul kenn nekk fa mën a doxal. na solo tu vois un peu mais bu mm. ñu jëlee liggéey yëpp teg ko ci loxo ñaar nit ñett nit. Mm-hmm. day metti ay jafe-jafe lay indi voilà am na solo léegi nag waaw. Euh, naka ngay xoolal benn affaire. Mm-hmm. tey ñun. micro bi bi problème bi amee. waa mm-hmm. seen woon mu ñu dem waxtaani est loolu nit ñi dinañ koy bàyyi xel mënoon na toog fi mu toog du woote. jàpp njàmburam jàpp njàmburam. ñu nag commencé. jël benn affaire su nit ki amee na loo xam ne amaana normalul ñu dem waxtaan ak moom. c'est tout. mais du ñu ñëw taxaw fi commencé non CNG wey moom foog mu jóge fi naan. foofu maanaam daal bu ñu xoolee sax làmb ji ñi ñi di war a wax du ñu wax. ñi warul wax rek kay wax est-ce que seetlu ko ah, que seetlu ko benn affaire. waaw. 25 ba tey. waaw moo dégg Matar Ba wax ci li xew. monsieur mm-hmm. lu mu ci wax. Hmm. est-ce que dégg ngeen ko est-ce ko benn yoon. Hmm. mu justifié wu wala mu expliquer le pourquoi du comment ça s'est passé comme sax waaw waa waaw li xew de département am la amee. waaw est que wax nga ci benn yoon. waaw man de naa est mu waxee ci ah, waaw. ah déggoo ko fu toog wax ne la le 25 dañu gouverneur moo taxawal làmb ji wala lee moo ko taxawal wala lii wala la explication est que boo amee fu mu ko waxee de man bëgg naa ko déglu. Ah, su ma jumulee de il a été aphone dégguma ko ci mu wax ci nii dégguma ko mu wax ci ci nale. en tant que suñu njiit. loolu loolu moom warul demee noonu pour man. mais ñun boo xoolee. ñun la nit ñi gis. waaw. mais ñaata journée desoon ci ginnaaw. bari na ah waaw waaw waaw waaw ñëpp ah, amoon. ñun ñu ngi gis équipe box bi box arena. Assane Ndiaye yëpp amoon i journée. ñëpp waaw léegi ñooñu. ñooñu ñoom Jax moo gét. voilà ñooñu ñëpp dugaloon nañ seen xaalis communication. waaw. tey perte nañ ko dañuy communiquer waat jox joxaat mbër yi ñoom Pape Abdou Fall ndeysaan ak combat si Papa Sow boobu xoolal ñi ak Leewtoo ñoom ñëpp am nañ ay journée ñëpp moom kay xanaa yéen ñu saison moo tax léegi nag euh, yaakaar naa ne fi mu nekk nii bay wéy na mbuus parce que li tax mooy ñu ngi ñaan yàlla ginnaaw suba soreetul muy dimas yàlla nañ ko fekkete tal ko mu mel ni fi mu nekk nii fan ngeen toll actuellement ci préparation làmb ji parce que yaakaar naa ñu ngi ci dernier réglage yi yaakaar ñu ngi ci te am nañu yaakaar lu bëri sotti. xam nañ ne dina neex. Mhm. ñu fexe daal def le maximum ordonné affaire yi. Mhm. ci loolu nag dañu remercier site internet yi. site internet lu tax ngeen leen di remercier. Ah, parce que yow boo xoolee télé yi télé ñu sëpp dañ ñu boycotté de am na lu tax nag de ñun xam ngeen ko yéen. waaw nañ ko. lan moo tax ñu war leen boycotté. parce que xëy na amaana ñenn ñi lu ñu bëggoon ñun duñ ko def. ñu remercier Lamine Samba tamit ak Père Tafa Gueye. parce que gis nañu ñoom def nañ ci seen wàll. Père Tafa lamb la. waaw moom Lamine Samba moom. dañ leen dinañu dinañ leen remercier def nañ seen ak Grand Ray tamit parce que invité woon na ma fi télé. Mhm. mais su dul loolu moom suñu promotion boo xoolee site internet yoo ko def. Ah, site internet yi ko def yi sëpp internet yi moom xam naa ne moom ñoo ko def ñu ngi leen di sikkal de waaye bëri lu ñuy liggéey de ah si làmb ko digital mais fi mu toll nii de façon digital mooy avenir bi bien parce que du ñu amuñu luñ koy fay parce que suñu rakk la waaw xam nga moom du làmb moo ñu boole parce que hmm. moom ah. damay sax suñu rakk dëggantaan dëggantaan parce que ay nijaayam ak ñun ñoo màggandoo ñoo doon ànd ak lépp hmm. moom lim si def moom macha allah moom Lamine moom waaw amul kii amuñu fayam fayam te fayuñu ko sax waaw wax ji gën a ci dee waaw fi bës moom bës moom ndeysaan yàllaa ko baax waaw waaw baax la Lamine itam nit ku safar te lay nag euh, loolu nañu ñu ñu ñu ñu aju moom nañu am ngoru rek ba ñu ñëw suñu journée tamit rek yàlla daal am na benn comme koy waxee daal yàlla am na benn yàpp bu dul jën voilà te defe naa làmb fi mu nekk nii bu dee côté communication la moom mm-hmm. macha allah moom waaw comme bi moom jàll na fépp fi fi nekk ko liggéey te Siteu ko liggéey waaw tey Lutte TV li mu ci def mhm. ah vraiment amuñu fayam dëgg la yéen ñëpp ci li ngay def nii mhm. waaw liggéey bi pour dimanche la bien sûr ah. waaw télévision defaluñu ko Siteu mhm. rek ñooñu ko defal ñooñu dëgg la kon ñun bu ñuy lëkkaloo yéen la ñuy lëkkaloo dëgg la su ñu amee koom war a jóge si ñun ñu ko jox télé yéen lañ koy jox dëgg la ñu jokkalante ko buy jóge ci yéen di ñëw ci yéen di jóge si ñun di ñëw ah. parce que ère bien sûr les les gens dans le monde maintenant ils mhm. am na am na promoteur yoo xam ne ñoom télé yi la ñuy privilégié. waaw ñun moom lenn moom nañu leer. Mhm. na leer. Mhm. site internet maanaam daal site yi ñooy nekk numéro un. ah bi. ñoo liggéey événement mais xoolal ñoom pël bi ñuy ànd ak ñun boobu commencé guñu ñu ngi ñu ñu ñu ñëw waaw te internet yi kañ ñu ngi fi. ba ba boo dama ci profité waale remercier ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ci média bi di liggéey ci làmba mm. suñu père yi euh, muy suñu papa yi nga xam ne ñu ñu ngi ci télé yi suñu papa mm. Bekaay Mbaye ñoom suñu grand Malick Thiandou ñoom ñëpp ñu ngi leen di di leen ñaanal jàmm mm. waaye nag comme li ngeen wax tamit àddina moo tëdd noonu xëy na tamit ñi nga xam ne tey ñooñu site internet yi moom ah yàlla daf leen dimbali ba nga xam ne am na ci ñoo xam ne dañu bëgg làmba wala sax ñoom ñi koy def bëgg gi ñu ko bëgg nag tax nañ bu ñu gisee promoteur bu ci yëngudu ñoom du ñu xaar promoteur bi ñëw weer ñoom hmm. ñoom ñooy déplacé wu dem ci vers promoteur bi hmm. ànd ak moom moo tax ñu ngay lim noonu hmm. muy ñoom pël bu rafet ñoom Lamine ñoom buur géwél ah ay booy ñu ay combat gis nga voilà booy Siteu booy Siteu taxawal na ay combat moom voilà jox ay mbër yoo xam ne nii Siteu moo tax ñu tëgg moo tax ngeen ngeen tëgg leen ça veut kon ñoom moo lay wan ne kon ñoom dañoo bëgg li ñuy def dañu bëgg li ñuy def loolu nag liggéey nag da nga koy bëgg ba pare mm-hmm. pour nga am ci résultat positif mm-hmm. il fallait que nga bëgg la ngay def kon daal dimanche moom insha allahu rabbi daal mm-hmm. lan lañ man a xaar foofu ci wàllum yëngu-yëngu maanaam org neexaayu bés bi parce que bés bi il fa il parce que Pape Sarr moom nee na moom rek day def karawaanu boppam. waaw nee na moom dina andi. te mbër yi waaw fuuta bi dina ñëw tukkulóor yi ñun séeréer yi ñu yegg si tamit commencé ko nar ko defanteeg tukkulóor yi foofu. la <laughs> ilaha illallah lool lool bambara bay atte ah bambara bay atte su boobaa bambara bay atte yaay na ci seen diggante may na ci seen diggante waaw waaw ñoom ñaar ñëpp samay jaam lañu samay fils lañu ah. Ah, séréer bi mais mais mais dimanche moment waaw en fait ñun mhm. il faut que ñu nit nit ki xam benn affaire mhm. ñu jéem a àndandoo innover làmb mhm. ñu commencé par làmb teel a a jeex parce ñu sóor waa tey làmb ba mu jeex fi 22h. 22h mhm. minuit la. Mhm. fële Italie. Mhm. te ñoom dañuy dund làmb. des fois dañu war a tëdd parce que ñu war a xëy liggéey. bien sûr mënuñu xaar làmb ba ay minuit. day metti. tey làmb war na mën a jeex ak lu mën a xew 19h 19h30 Sénégal làmb di jeex. ku ne mën ko seetaan partout ci àdduna bi. biir géew bi. ñu ngi ñaan CNG te wax nañ leen ko. bëgg nañ géew bi set. waaw dafa bëri toog ñu taxawal ci biir géew bi. doo xam kii mooy kan doo xam kii li mu def accès ci géew bi dafa yomb. dafa yomb à part site yu ñu accrédité. Mhm. ak service d'ordre. Mhm. tambour major. Mhm. mbër ak ñi mu àndal. keneen waru faa mun loolu sax daa doy. loolu sax dafa doy loolu dafa doy manager ak ñu dimbali rek ngir yàlla. loolu buntu bi salaire est ouvert. pour ñoom. pour ñoom dañuy ñëw seetaan si. mais nañ ñu dimbali rek. ñu teg leen loge wala. toog voilà mbër bi nga xam ne ni sa manager moo la engagé. Mm-hmm. kooku mën na ne ci biir géew bi. waaw loolu moom yoon mais manager bu fa amul mbër. Mm-hmm. ñëwal nga toog loge may nañ la nga toog loge nga seetaan. mais bëgguñu jiw bi cambal bëri bi daal moo leen gidul nekk quoi am na solo ci ñun lañu bokk bien sûr ah déet manager yi engagé mbër yi mhm. manager yi ñu engagé mbër léegi damay ñëw léegi ci côté parce que làmba ji macha allah yàlla na ko yàlla yeggale ak jàmm mhm. mais am na tamit benn coow bu ci juddu xam naa foofu la ñuy jeexale sax mhm. après bu ma paree ñu tëj foofu ak ak tigéey coow li ci juddu ba mbër bu ci waroon bëree wala ñaari mbër ne du ñu bëree euh, ba mu jur coow aj écrit am ci ay wax juddu ci Mhm. muy le cadre mobile ak aigri Grand Yoff mbooloo ba ci bëgg fàllu loolu nu ngeen ko dunde ak mbir moom lu ngeen ci mën a leeralaat Sénégal yi ñu joxe seen xaalis benn bi déjà soxlawul sax ñu ngi si débat Malick Ndiaye ñu si débat dina bëri Malick Ndiaye dina bëri si dina bëri si ok kon leer na Kaaw mobile de mhm. mobile 2 signé nañoo moom contrat mhm. mu ngi signé ak ñun am yu bëri yu ci xew nag après signature bi ñu dëgg bal bi parce que jàpp nañ ne suñu rakk la bi muy mu jékki-jékki woo ma personnellement ne ma day dem États-Unis mais day màggal si bi mu demee mu dem ba yegg foofu ne mënatul ñëw am na lum ñu expliquer nag waaye nag am na loo xam ne boo ñu ko expliquer bu ñu neexee ñu bañ ko bu nit ñi foog ne parce que lim ñu expliquer la noonoo dafa bëri yu xew avant ñun nag benn instant ñàkk ñu fayda mun nga ñu wax lépp nag mais ñàkk fayda moom duñ ko nangu def astuma ko ci koo xam ne bu ñu góorgóorlu woon tuuti am doom bu nekk moromam mm-hmm. xam mm-hmm. léegi nag situation baa ngi nii mm-hmm. CNG mooy jël responsabilité am jeex na affaire bi duñ ci sax débat bu CNG pare nag mm. ñu nit ñu jël suñu responsabilité def lu ñu war a des yéen lu ngeen di def maanaam ah, loolu moom loolu moom bu bu làmb bi jeexee après mm. kooku ce CNG jël responsabilité am par rapport ak le fekk mu nekk mbër après bu ñu paree loolu ñun dinañ jël suñu responsabilité parce que ñun tamit dañ joxe suñu xaalis. su ma la déggee maanaam c'est responsable bu ngeen ko jëlee da ngeen di dem ak moom ci que jox da a fas yéene dem ak moom euh, laaj benn affaire. mobile 2 personnellement mënul tax suñu journée bañ a neex. moom dina neex. voilà mais mobile 2 porté nañu préjudice. porté nañu préjudice jox nañ ko suñu xaalis jox nañu suñu xaalis Bour Sine te après loolu si yàq na suñu campagne de communication tamit dañuy waxante dëgg. Ah, loolu nag loolu yëpp nag bu weesoo après dañuy dañ koy jëflanteeg moom loolu moom amul sax gauche ak droite. Hmm. ñu jaaree fa nag remercier Boursine. parce que tey ah, lu ñu ti wax. Hmm. Euh, Boursine il a toujours été correct. Hmm. coow li coow li si mun ti wax. fi mu toog la toog jàpp njàmburam. Boursine benn instant nit ñi ñëw nañu di ma woo fii di may ne ay Boursine nen du bëre te Boursine mosul wax loolu. dama ko woo téléphone Boursine blessé na. balaa combat bi te dafa naroon bëre mu noppi ci li mu noppi rek toog jàpp si njàmburam jàpp njàmburam mhm. kooku lan nga koy wax ku fi jóg yeewu am looy wax buur si da koy tooñ da koy tooñ da nga koy tooñ blessé na taxawul fenn ne dama blessé ne dama blessé nit ñi dañ ko doon woo mu ne leen taluma làmb mu mhm. ngoog am na solo léegi léegi yow kii nu mu tuddati euh, Jimbo euh, léegi cas boobu yow tam noo ko noo ko noo nu ngeen nu ngeen ko gisee sawaay ne na même bu seen bu lam yi passé sawaay wax na lépp mais dama leen di wax ne waaw na ci ay texte dañ koy adapté hmm. le promoteur n'est pas assez protégé promoteur yi te protégé wu non non parce que tey xam nga ñun tey waaw du cachet bu mag ak mobile hmm. mais tey su ma songoon Balla Gaye Modou Lo hmm. fay leen cent cinquante millions waaw joxe avant soixante quinze liggéey ci li ca war kay tëdd fay na bëriwu ma préjudice boobu nu muy demee lu metti lay doon de sa micro il faut CNG. Mhm. ñu xoolaat taxawaay écurie yi. Mhm. ak mbër bi ak manager bi. parce que benn engage mbër ak manager ak écurie benn engagement la war a nekk. Mhm. écurie yi foog ñu dooleelaat ko. comme ni nga wax écurie Fass tey am na loo xam ne xalaat kenn xalaatul mu fay xew. parce que seen dirigeant yi xam naa leen. am na solo. di di waxit di waxit ci ci kaawu Malick Ndiaye. waaw ñun amuñu xaj ak seen de. ku lekk suñu xaalis wolof Njaay ne ku lekk avance sëgg bëri. waaw wolof nan yenn yëfu tappale la yëfu yabaate la. Hmm. ay waxal ak sama staf ak sa staf xamuñu ko sa manager lañ xam yaa ko jox sa licence mu engagé la ñu jël suñu xaalis teg ko ci loxo mu jox la ko nga war na ko mu res ci yow. làmb ji yàqowul suñun cas de force majeure la. Hmm. CNG def na courrier bu leer nañ adressé ko ko pour moom ak ñi doon wax ne bëriwuñu kon buy tappale toog ci ruq bi di bandi bandilu di am lu muy jéem a ñoddi dinaa ko ci fekk waxuma keneen de man personnellement dinaa ko ci fekk ba mu sës rek ñu xool ba xam da nga moom moom moom moom moom moo ñu poñe ñun wala wala dëkk bi dafa am yoon. dëkk bi am na yoon man man ma jàpp man. Hmm. mobile bëriwul. dafa hmm. ragal Bour mobile bëriwul daa ragal Bour man loolu laa jàpp. leneen lu ñu dugal sama bopp du dugg mobile mobile moom jàppewu ma ko ragal nag barki yàlla daa ragal Buur Sine mobile di doomu grand yo fi tamit ñemewul Buur Sine allez allez nag mobile ñemewul Buur Sine non xanaa ñàkk mën a ñëw kaya fi ne waaye nag mobile mënta ragal Babacar gars yi dañuy jël avance dem ba ci biir avance bi wex xat non loolu ñemewu ko mobile bu soobee yàlla day ñëw nekk communicateur traditionnel ah <laughs> communication traditionnelle parce ah, que gars yi ñu ne ci wax ci la gën a ay <laughs> mobile mobile ñemewul Buur Sine wax jee fi nekk rek dinaa sawar ci liggéey xam na lan moo mel. tey da ngay jël. Euh, tey da ngay jël vingt mbër. waaw vingt waaw mu am si dix yoo xam ne kenn déggu leen. nga am si deux yu nekk fi di la sonal. li ma ci métti mooy ñaar ñi gën a bëri wax ñooñu ci sonal. te yàlla xam na ne xoolal ñoom Marley nekk kuréel. vraiment bu zap. ñun suñu combat bu ñu bëggoon. am moo doon Bou Siteu euh, boobu ngeen bëggoon Pape Opsa moo jël cinq millions xaalisam. waaw ma daggalee licence Malick Ndiaye. face bu ñu def arène nationale. waaw Malick Ndiaye dafa demoon ci àll bi amul paas bu mu bu ñibbisee man la woo maa ko orange ma ni vingt cinq mille mu ñëw. mu ñëw jour ji ñu mayaat ko xaalis. mais Malick ah? am sañ-sañu di di di woo waa Kër Pokola di ruubee foofu. pour bu ñu bëree pour influencer leen pour Kumba Balde yekk ko lu mel ni xeme xam nga xam nga lu garaaw. doy na waaw écurie moo ko bëggoon jël. écurie ba Tay Shinger bëgguñu woon. non Pape Sarr moo ko lijjanti. dañ ko forcer ba ñu jox ko parce que gën na bëri man xaw ma woon dafa mel ni Pape Sarr doo ko jëlee armée yi génnee ko a bandi bandi boo bëgg a dof dof li ñuy wax ragaluñ ko xamul tax gis nga boo tooñul da ngay am sañ-sañ ci li ngay wax ak ci li ngay jëf man tooñu ma ma respect du ma nangu it ku ñu tooñ ku ñu manqué respect bañ nga jox suñu koom daa neexoon ci yow mm. bu dee dërëm la jàmm Sénégal di nuyu équipe bu Rent DKR yëpp Pape Sarr Jogoy Alain Jimbo ba beneen yoon ak Piso ah waaw di nuyu soxna si. waaw Sandra. Sandra. Sandra bonjour <laughs> ba beneen yoon. <laughs>